kooku moom ñàkk xam. donc mënees na ko jégal parce que kooku xamut. mbir yi wala boog wax na avant may wax man. Ah, ah, ba tey mën na cee nekk. am na keneen ku ma dégg mu mu maanaam muy muy wax itam ba di jaxas yu ci bokkut. Hmm. xëy na ba muy wax. Hmm. encore man waxaguma. Hmm. waaw xëy na njuumte moo am parce que loolu dara euh, xëy na ñëpp xeer pour bëgg a defar euh, ba tax na man du ma rapproché kenn du ma du wax ken man daal ba ma ba ma déggee wax jëm ci man dégg nga donc wax naa leeral. nag defe naa ne leeral naa ci ak ci ay teggin ak i xam-xam dégg nga ak nag donc diplomate bu mat sëkk la ma la ma wax man donc te itam bu ñu ma laajoon wala ñu wax ak man dégg nga ma doog a gis mhm. wax ji nga xamante bi man lay accuser directement wala man lay jéem a désavouer kon mhm. du ma wax mhm. te ba ma waxee dem booba laa ca pare woon moo tax bi doon même man bëggatuma dugg ci loolu parce que vraiment donc c'est un débat boo xam ne ah. bi donc tëj nañ ko amul solo euh, ñi ci war a xam ñëpp xam nañ mais nag euh, pour leeral ñeneen ñi nga xamante bi ñu ngi ciy jaxase ci bokkul mm-hmm. xëy moo waral sax ma nangu dégg nga waxtaan wi nga xamante ne bii mm-hmm. donc man maa ngi koy def mais ba ma pare dama noonu du ci waxaat mais nag comme mën nañoo waxtaane yeneen yu am njariñ mm-hmm. dégg man ay nit mën nañ ca dellu ko xam-xam hmm. man mooy sama objectif mais du du polémiquer wala hmm. may continuer la la donc na loo xam ne nag comme dugg comme dugg nañ ci mbàkk fekkee mën nañ na ndax dañoo dégg itam koo xam ne ci wàllum politique la la xaw a ak kisi honorable député Serigne Cheikh Thioro tudd sa tur waaye ni mu waxee def nii ki génne lettre bi dèjà dafa jàpp na kon yaa ko génne dañ koo faloon ci postu tekki ndombal tànkam moo kon ko naqari mu bëgg a jaxase muy yeeg état bi moo tax mu génne ko loolu ndax dégg nga ko man ka euh, gën a tuuti ci yoonu murit ka hmm. gën a tuuti ci yoonu murit hmm. man intérêt politique hmm. du tax ma xarab ko mbaa ma bëgg maanaam euh, discrédité man defe naa ne am na ñeneen donc ñu may war a waxal ñi may war a tontu parce que sama jëf dégg tontu na ku ko xamul nag ku donc ku eñana ba xamoo xamako hmm. man sama position donc tontu na ñi ma xam tontu nañ hmm. koo ko wax loolu xëy na mi ngi may dégg hmm. euh, ma di ko dégg ay waajur ak ay maamam xam nañ ma xam nañ seen waajur xam nañ seen maam foofu dong laa yem te maam daal génn ko yow ma ne boobu dama ci dul wax xam nga ah, xam nga xam nga xoo maanaam mën naa parce que bugguma dëgg la dëgg la maa wax ci maam lu may wax li may wax daal man doy na man su may tontonteel am na am na ñeneen hmm. dégg nga maanaam ñu may tontonteel ak ñu may waxal am na wax yoo xamante bi maanaam bëgg ma ci woon yegg mais ko wax mook mbott yi yi ngoox hmm. man laa yemale maanaam fexe ngàcc ndox ma hmm. ba du doo ko dégg du la tàngal mais aw ma ci lu ma ciy commenté xoolal maanaam ñooñu du maanaam maanaam on ne boxe pas te te ma wax ah, am na ki ma dégg ne mooy wax. Hmm. moom moom xëy na moo ma réere hmm. ay waajuram réere ma. Hmm. ay maam réere ma. réere samay maam ci jàmm lañ séq ak ngor dégg nga euh, ba tax na man kooku moom ci boppam lu jëm si woon ci moom tey maam du pour moom de. mais pour ay waajuram dégg nga wala pour ngir jëm sëñ Fallou mi nga xamante bi moom la ay ay waajuram ak ay maamam. Hmm. dégg nga toppoon dégg nga maanaam lu waroon jëm si kawam tey maanaam man dégg nga sama kaw lay dal malgré mën naa ne dégg nga li dox sama diggante moom donc donc bari na. kon man du ma wax ci benn intérêt. dégg nga personnel wala may maanaam yàpp ko mu wërta yàpp hmm. dégg nga mbaa wax mbaa wax tey moom bu newoon ci situation bu gën a garaaw bi may nekk tey dégg nga man lu ne den ma ko jaral ma défendre ko donte li dox sama diggante moom donc sori na lool mais man donc noonu lay doxee donc am na ñoo xam ne man du ma tonton rek ñoom parce que maanaam maanaam nit ki soo ko xamul soo ko xamul dégg nga ay nga waxoon moom xamu ma mais ay waajuram xam nañ ma man xam nañ fi a waxee Mbacke ay maam xam nañ ma ñu ngi ñu ngi jégalu sax ci lañ fay nekk lépp maanaam ay ñetti fan ñeent gën garab te maanaam duñ ko fekkante te ñëpp maanaam ñi fekkante ñëpp sax dégg nga mën nañu ñaari fan lay doon lañ la ci des kii dina dem kii kii <laughs> mën naa ko fa des nag hmm. ñetti fan ñeent parce que walam wala xëy na mu amalu fi doon dox wala wala wala nangam mais mais mais libertéwul te itam li ñuy wax lépp am na ñoo xamante bi di di wax xoola amul benn yoon boo xamante bi li ñu jox ci chambre dégg nga te ci compte état moo ko moom mat na sax 10 million ah, soo ko doon seet xëy na facture hôtel bi la ñuy fay ak lekk yëpp maanaam bu ci mat 10 millions sax dégg nga. dépp boobu ak léegi. waaw maanaam chaque année. chaque année maanaam xam ne dañoo defe ne. dégg naa ñu naan ay ay millions la loolu. ba tey loolu dañ ko war a leeral. Ah, ñaareel ba mooy nekkul loo xam ne daal lu la kenn rek a xool. ñaareel ba mooy euh, euh, magistrat yi àddina bi. Hmm. bu ñu amee seen congrès international. dañ leen koy jox. dañ leen di jox oto. Hmm. lañ laaj. Hmm. leen di jox dal. même li nga xam ne mooy mu association bu avocat bu ñu def congrès international. bu ñëwee dañ leen ko jox du question loolu te ñun ñun xamuñu sax ne loolu mën naa nekk. Hmm. bi fi Thierno Lo nekkee. Hmm. lañ ñu euh, wax ne ma di may sant euh, Cheikh Abdou bu sëñ Modou Mokhtar. Hmm. ak Soxna Bali. Soxna Momi moom miinante na ak Thierno Lo mais man miinante wu ma moom booba sax donte xamante nañ. dégg ci moom lañ jaar wax ak Thierno loo mu accordé ko fi saase. ñaari at yoo xamante bi mooy ministre du tourisme. mu accordé ñu ko mom hmm. wax nako ci ben vidéo manam hmm. ngir seere ah. euh bam fa joggé Youssou Ndour ñew té nga lañ caroloon da dan dan defal après manam mu du ko non hmm Youssou Ndour hmm. dé nga té man musuma ko sax euh, gis ak mom ngir wax ko lol dédé bañ ko xamalé rek ak ñi muy liggéeyal dé nga dé nga nekk ministre du tourisme ñoo xam ne ko lii lañ daan def. Hmm. léegi mu accordé ko fi saasi. Hmm. ba mu fa jógee am na soxna su fa nekkoon ministre ñoo ko du may mën a xuma nan moo dikk daal di ko rejeté. Hmm. waaw ku ku ku ku tudd may mën a xuma nan. nekk ministre du tourisme waaw. du tourisme ay xuma lan transport aérien. bañ defee loola Mouhamed Abdoulaye Boun yàlla na ko yàlla yërëm bañ ko ko yëgalee. te lépp nag maanaam ànd ko ak nag. donc donc kilifa yi. Mm, mm. yi ko seqal. mooy ci biir comité bi. waaw mm. ñu wax ko. mooy benn la benn Abdoulaye Dione dégg nga maanaam maanaam ci intervention sëñ Bassirou bi nga xamante bi mooy suñu kilifa. monsieur mu wax ko mu jiite président bi. waaw président comité bi moo wax ki nga xamante bi mooy premier ministre à l'époque yàlla na ko yàlla yërëm. ndeysaan dégg nga. ne kat ñun lii lañ daan def te nangam waaye nag ren nii. moom benn Abdoulaye Dione moo ko prendre en charge dégg ci primature bi ne nag ñu nag bu déwénee loolu moo ci indi secrétaire général ñu nag hmm. loolu secrétaire général léegi ngeen di bind la ñuy yóbbu mbir yi hmm. après dinañ wax ak ñoom pour ñu defal ñu ko ni ñu koy defalee ñeneen très important leeral yi am na solo Thierno loolu sax nee na ba mu koy def nee na am na yeneen famille religieuse yu mu koy defal am na ñu tudd ne hmm. ñooñu ni ma ko defale murid yi yëmu ci noonu laa leen ko defal maa yëmut ci murid yi donc déedéet déedéet tey nag li wax na solo mooy somme bi li ñuy njort ne dafa nekk xaalis bu gën jaa bari mu tudd 10 millions ay chambre yoo xam ne bi ñun fukki chambre ak juróom hmm. lañ laa laaj ci lettre bi hmm. lettre boobu ñu bëgg a xam ma bind man hmm. fukki chambre ak laa ci laaj ak juróomi suite yoo xamante ne bi maanaam chambre yi bu dee eh, prix forfaitaire ay quatre-vingt quelques mille francs la ma dégg nga sax loolu. bu dee suite bi xëy na mën naa cent mille francs. Hmm. de de dégg nga maanaam par jour donc donc prix prix forfaitaire. Hmm. loolu bi ñu defee loolu lañ continuer di ko def ni ko daan defee ak dafa am beneen lettre boo xamante ne tam xëy na benn bi lañ gis. Ah, mais man ñaari lettre laay bind. Hmm. beneen lettre bi pour parc automobile boo xamante bi nañ koy defalee. bu avocat yi dee am seen congrès magistrat yi am seen congrès nañu ko defee ñun donc noonu lañ ko daan defalee. du ko defal nag yenn famille religieuse yi mais après ñu jox ñu chaque année dinañ jox lu mat juróom benn voiture yu ndaw dinañ jox encore maanaam ñaari bus wala benn bus ndax ça dépend ci nu délégation yi tool ak nu ñu ko soxlaa yegg nañ ci sax ba léeg-léeg seen oto du nekk ci condition dégg nga ñu luyeeru ñu oto waaw léegi Sénégal Tour hmm. dégg naa kuy wax euh, di wax naan daaw joxuñ leen ko loolu amul hmm. daaw jotuñ ci hôtel bi parce que ci délai yi ak heure accord bi génn hmm. man maa jël décision ne comme am nañu commencé ñëw hmm. te hôtel yi jotaguñ ci nañ changé programme bi ku wàcc dégg nga ñu am fu ñu leen dajale dégg nga mu metti woon lool ndax booba salon VIP bi lañ nekk ba ñëpp daje ñu indi leen Touba bi ñu ñibbi itam ñu garder leen fii léegi ba dem jot jotuñ hôtel mais du question dañ ko rejeté ah. maanaam seen programme. avant procédure bi pare moo moo laajutoon xaar. waaw mhm. waaw loolu ñun dégg nga moo laajutoon xaar mais oto yi jox nañ dégg na ku ne nag joxuñu oto. Mhm. kooku kooku moom yaakaar naa ko jox information na. Ah. jox nañu seen oto chinois yi daaw. Mhm. dégg nga maam lañ laajoon ci oto lañ ñu juróom-benn la ñuy laaj. dégg nga ak bus parce que comme loolu itam même li dal hôtel yi. maanaam moo oto bi na ndax oto yi bi ñu koy jot fekk na ñun sax ñu luyee oto. Ah. ndax booba bi ñu koy jot fekk na gan yi commencé ñëw. comme procédure boo xam ne ñun mënuñu leen a soññ loolu moo tax ñu far bàyyi hôtel bi dégg nga ñu annulé ko mais kenn racheté wu ko. très oto yi itam kenn racheté wu ko. Hmm. luyee nañ daaw parce que bi ñu luyee bi ñu jot oto yi fekk na gan ñu commencé ñëw te ñun ñun mënutu ñoo xaar. Hmm. mais jox nañu ay oto daaw kon ki wax loolu na vérifier information. macha allah Mbacke euh, fi ma bëgg ñëwaat ñu taxawaat foofu ba tey mooy dañoo gis ni nga waxee daa mel ne yow secrétaire yaa nga wax m nga bind présidence. Hmm. te man gis naa li nga xam ne moo lettre bi. Euh, pour leeral ñi suivre ne lettre bi man teg naa ci bët daf koo bind. partage wu ko mais ah, waaw entête parce que euh, am na xam ne partage ko mais pour pour wax leen man teg naa gët ci lettre bi te def koo def entête bi ci kaw bu mbindee comité d'organisation Grand Magal Touba dafa bind suuf commission relation extérieure ki suuf mu adressé ko secrétariat euh, président de la république yaakaar na Omar Samba Ba. waaw waaw mooy li ma gis ñu bind ko. secrétaire général ko nag moom ah, signé ko bind si Seexuna Mbàkke kon pour ñuy wax. ñu war a jàpp leneen ci lettre bi ñu xam ne lettre bi ma gis man te ñaari lettre la bu ci nekk daf koo bind ci sous commission relation extérieure moo nekk ci lettre bi contenu lettre bi nag euh, dafa am loo xam ne pour dafa am loo xam ne mbirum état la xëy na dafa am ñoo xam ne ñoo génn lettre waaye daa am loo xam ne mbirum état la moo tax génnewu ko mais daal li am solo mooy yéen ñi njort laneen ci lettre bi xam ne lettre bi daf ko bind en tête bi relation commission relation extérieure bu comité d'organisation Grand Magal Touba mom la ko bindee. moo nekk ci ni ko daan bindé chaque année lolou mo ki nek pour yeen ngeen ngeen xam rek ngeen meuna xam bu fekke am na ñeneen ñu ñort leneen tamit ñu xamne li mo xam man mi wax ak yeen wan na ma lettre bi gis naa ko yaakaar naa dana doy tek tek na ci gët euh, Mbacke fi bëgg taw kon moy lu ko dugal lu ko duggal turu Cheikh Omar jaagne mi la tontu da dama dama gis nga bind li ma gis ci lettre moy da nga cey def euh Omar Samba Ba moom ko adressé Cheikh Omar jaagne tontu xam nga administration dafa am na muy doxé hmm. euh tay bu amé lu ñëw hmm.

wala mu bañ a tontu. Hmm. wala moom mën naa sañ-sañ tontu man ma ci ndax seen organisme ay. interne ma xawma ko. Hmm, hmm, waaw mais man da nekk naa ci administration donc jiite une poste diplomatique boo xamante ne bii maanaam xam naa ni ni ay dossiers di demee niñ ñu koy ëllee. waaw lu tax mu tontu. ndax yoon la wala du yoon. xay na ñoom xam nañ ko mais man loolu loolu mënu ma cee tontu. li leen daal li leen daal yow adressé woo ko lettre moom. yow secrétaire euh, euh, présidence nga adressé. moom nga bind. ke tontu la te li ma ci am solo mooy li ñeen ñu njort mooy euh, wàllum usurpation de fonction mel na da nga koo bind ci turu président comité bi ndax lettre tam li tax mu ñu bëree am ci njaaxle mooy dañoo gis moom bi mu lay tontu daa bind président comité d' organisation grand magal de Touba foofu itam yaakaar na mat naa leer. fa mu njëkk a am na fu mu ñu defee même faute d' orthographe donc ci bi lettre bi xeyna yakam yàkkamti xëy na nit ku yàkkamti bëgg a hmm. li nga li nga wax defe noonu précipitation ah, xeyna donc moo indi lolu hmm. wala man na don nak c'est bien intentionné mën naa am hmm. parce que la tax nit ñi di xalaat naa dama def man def usurpation de de de non manam wala noonu xëy na mën naa mu jublu ko ci donc xawma en tout cas man li ma def la xam ak donc li ma concerné loolu mom lu mu ci jublu dafa joom wala moko tay man xaw ma ko moo tontu wala wara a tontu kooku ñoom lañ koy laaj mel na ni itam yow lettre bi da ngaa xëy gis ko mu génn ci réseaux sociaux yi mel na daal ak génnam moom yow ni nga waxee sax boo sañoon du am ndax danga ngaa jàpp ne mbir mi solo sax agul foofu ndax la ngeen bëggoon ginnaaw bi ko ñuy gàntalee ay tarib nañ ko waaw kon lu war a génne lettre bi man man waxuma ma ci njëkk a laaj ba ma hmm. waxee dama ko ne no hmm. ko man duma ci wax hmm. ndax ñun ñoo ëpp loolu ne ko mais maa ngi déploré maanaam lettre bi biñ fuité fi jaar bañ génne ko man Euh, neexuma te d'accord ma ci. Hmm. ne ko nag mu ne ma nag euh, xam nga su journaliste si ñoom dañoo xereñ. Ah xam nga am na foo xam ne bu ñu la fa jaaree rek. <laughs> dégg nga faa ñu gis la mu ne ma nag kon lii daal dina indi rëq-rëq eh. ma ma ne ko ban nii laa ko ne dama ko ne ban rëq-rëq. Ah. ma ne ko par contre. Hmm. liñ soxla woon taalibe Sëriñ Tuubaa jox nañu lu ko. defal nañu ko macha macha allah Mbacke tamit ba leer na kon yaakaar yi ba tey ngi si pour en cas. te mën ko bañ a soxlawaat parce que. ah waaw waaw parce que lii bañ paree bañ paree. dégg nga ab taalibe Sëñ Tuubaa moo joxe joxe otelam Palme 20 chambres. fa lañ jaar ba ñëw Touba bi ñuy delluwaat dégg nga beneen taalibe Sëñ Tuubaa moo fay otel yi donc muy Mbacke yu fay. macha allah fi bi ñuy delluwaat. Ah. moo fay très important. li ñu leer donc euh, et puis

dañ ko war a arrêté <laughs> parce que lim bind ak def est-ce que kan invité <laughs> eh, maanaam ndax moom moom du bind ak ambassade sax di nga pour bu ñëwee cadeau yi xam donc mané na ko parce que kooku xamut yi wala may wax man ah, ba ku ma dégg muy wax itam ba ci wax xëy na njuumte moo am parce que loolu dara euh, xëy na ñëpp xeer pour bëgg a defar euh, ba tax na man du ma kenn du ma wax kenn man daal ba ma ba ma déggee wax jëm ci man dégg nga donc wax naa leeral nag defe naa ne leeral naa ci ak ci ay teggin ak ci xam-xam dégg nga ak nag donc diplomate bu ma sëkk eh, la ma la ma wax man donc te itam buñ ma laajoon wala ñu wax ak man dégg nga ma doog a gis Mm-hmm. wax ji nga xamante bi man lay accuser directement wala man lay jéem a desavouer kon du ma wax mm-hmm. waaw te ba ma waxee dem booba laa ca pare woon moo bi dalu même même man bëggatuma dugg ci loolu parce que vraiment donc c'est un débat boo xamante ah. bi donc tëj nañ ko euh, ñi ci war a xam ñëpp xam nañ mais nag euh, pour leeral ñeneen ñi nga xamante bi ñu ngi ciy jaxase yu ci bokkul mm-hmm. xëy na moo waral sax ma nangu dégg waxtaan wi nga xamante ne bii donc man maa ngi koy def ba ma pare dama noon du ma ci waxaat mais nag comme mën nañoo waxtaane yeneen yu am njariñ hmm. dégg nga man ay nit mën nañ ca dellu ko xam-xam hmm. man mooy sama objectif mais du du polémiquer wala hmm. may continuer la la donc